si buñ ko validé ah, donc sénégalais yu bari ñu ngi naan day dil ak Macky Sall donc moom sax dem na ba tontu ci ah, donc ban jàngat nga am a chaque fois sénégalais yi di xalaat que ni ah, Habib Sy euh, day day dil ki nga xamante ni moom mooy a Sall. <coughs> non xam nga man lu ma mën a xam. waaw Habib Sy mus na am lu mu doon de. Hmm. ci Ablaye Wade. ak ñeneen ak ñeneen. Hmm. mais li mu doonaat nii. Hmm. Ousmane Sonko moo ko def. moom Habib Sy. non xam nga Habib si bu fekkonte ne daf topp gi mu doon topp Ablaye Wade la kon Habib kon Habib si moom daanaka loolu moom seey na. d'accord topp gi mu toppaat Ousmane Sonko. Mhm. yaa ngi dégg mhm. nit ñi tamit xoolaat ko. parce que tey gis nga fi ñu xam ni si bëgg Sonko lañ amee lépp. la du dëgg. Mhm. parce que Barthélemy ci bëgg bëgg Sonko la amee maire de Dakar. Mhm. Habib Sy am ci parrainage. Mhm. keneen keneen am ci leneen ak leneen. Mhm. mais bu ko ci amee ba pare ndax dina delloo mbàttu ca ndaala. d'accord loolu la ñuy seet quoi. loolu jotagut. parce que tey tamit xa xay na moom itam. comme li mu doon toog di ko waxandoo ak ñoom Sonko di ko toog di waxandoo ak yeewi askan bi. xëy na bu demee ci biir campagne bi. ci en tout cas am politiciens yëpp laa la wax. Hmm. am na lu ñu lay nëbb loo xam ne ci biir campagne bi lay feeñe d'accord am na loo xam ne ci biir campagne bi lay feeñe loolu. Ah, waaw bi mu amee mu def sorti tontu. mais donc est-ce que na muy tontu comme Sénégal comme ni nga ko xamee gars yi dañuy wax yu demee doonu ah, bi mu jotee que ni ñu bari ñi ngi naan day dil ak Macky Sall mu génn tontu leen est-ce que jaroon na ko Jimbori ci sa xalaat. noo xam nga dindi tuuma du ragal setal sab der la mais bu fekkante ne li mu wax moom dëgg la diilul ak moom. mais loolu yàggatul léegi léegi mu feeñ. d'accord loolu moom xam nga élection yi li ci des dafa bëriwul. Mm-hmm. actuellement nii. Mm-hmm. ke ke koo gis fii ay mbiram actuellement nii pour mu leer jot na. Mm-hmm. fu mu nii deux mille vingt quatre mooy atum leeral. d'accord léppay leer en tout cas Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye affaire yooyu pour man. état daal man pour man ah bëriwul lu muy lu may xam ni ah dina tëj défaillant du dina tëj défaillant ah, quoi. d'accord. défaillant. Hmm. musuma gis daal comme. état di ko tëj nguur di ko tëj daal. parce que day xam ni kii moom. Hmm. boo ko logalee dara rek mu log logal jaru ko. Hmm. mais kii nga xam ne boo ko logalee du log kooku moo leen di jaaxal mais ki nga xam ni day lekk neexal ak affaire yooyu kooku moom. yomb naa convaincre du dégg kon Habib Sy hmm. yaa ngi dégg hmm. comme moom mi ngi dem te am na dafa am loo xam ni fooguñu ko woon ci moom mu am ko hmm. Déthié Fall am ko yaa ngi dégg léegi moom ak Déthié nit ñi dañ leen di suivre loolu mooy affaire de xool ba xam ñoom nan la ñuy def parce que defe naa li ñu jëflante ak Ousmane Sonko ak li Ousmane Sonko jëflante ak ñoom defe naa loolu Déthié Fall du ko du du du du ko fàtte Habib Sy du ko fàtte dinañ ci bàyyi xel te dafa naa ni suñu bëggee gañe réew mi sax si mhm. campagne boobu la ñuy dem ak nit ñi mais bu ñu demul ci campagne boobu dara duñ ko am d' accord man maa la ko wax d' accord loolu am na solo bu baax a baax parce que campagne bii di ñëw moom Ousmane Sonko mooy campagne bi bul sax sonn mooy campagne bi moom d' moom la ñuy campagner moom la ñuy campagner mhm. képp ko xam ne nii ànd nga ak moom parce que Ousmane Sonko li ne si moom yàlla moo ko ci defagum mhm. du moom moo ko def boppam du dëgg li yàlla def xëy na moo gën ci ñun mais fas nit a koy làbbali gis nga dogal boo dem da nga fay fekk tànk boroom yàlla mun na leen a wan yéen ñëpp ngeen gis ni ah kii kat yaa ngi dégg nit ku baax la nangam naangam boo leen ko tegee dina avancé mais Ousmane Sonko moom problème am lan la moo ma jaaxal quoi problème Ousmane Sonko waaw ci naka mais du ma sàcc est-ce que nit war na si mën a am problème quoi musuma sàcc mhm. loolu mooy problème am daal sàcc <laughs> hmm? laa daal doo am problème ah, waxal rek c'est vrai de xoola yonent bi bu dellu si waatoon hmm. li Ousmane Sonko di wax nii ne duma sàcc hmm. loolu la fi bàyyi ne bu kenn sàcc du dëgg léegi Ousmane Sonko moom loolu lay wax du ma sàcc mais léegi du ma sàcc daal moom si la amee problème bii daal ak bu ma bu doon man maa yore nguur gi dinaa jàpp ñi sàcc kon lii mooy problème am quoi d'accord yaakaar est war na mën a war na mën a nekk problème ci réew moo xam ne nii nee nañ genn wàllu réew mi yëpp ay jullit lañ. Mhm. waxal du sàcc nga wax ko am ci problème dem ba wéet ak sa problème ñu toog di la xool mhm. waxal rek. est mun na nekk. d' accord ah waa euh, ah. loolu am na solo bu baax a baax mais donc démb li nga xamante ni conseil constitutionnel ah euh, wàcc na ci Ousmane Sonko que ni euh, mënul bokk dossier am dafa incomplet donc dañoo gis ki nga xamante ni moom mooy capitaine Touré posté ah donc Jimbori déggal mu wax nee na ah, bi mu yëgee que ni Ousmane Sonko mënul bokk ak yu demee noonu ah, dafa jooy ki xamante ni moom mooy Kéba Mbaye parce que justice wala bokk amatul fi nga xamante ni moom mooy Sénégal dem ba ni 2016 bu ñu fàttalikoo ñi nekkoon ci. conseil constitutionnel ñoom ñoo doon wax que ni euh, troisième mandat euh, bu kii bi Macky Sall bi dañ koy valider donc loolu am ñu gis capitaine Touré dafa sotti wax loolu ban jàngat nga am ci li capitaine Touré wax. non xam nga capitaine Touré bu toogee ne. dafa jooy. Kéba Kéba Mbaye. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. mais Kéba Mbaye jàmbaar la de. Mm. ñeme woon na dëgg torop. est ci loolu. waaw waaw loolu lay loolu lay wax. mais keebaa mbay tamit daf ko seqaloon ñu nangu dëgg hmm. fu mu toll nii boo indi woon Kéba Mbaye kese kese kese hmm. est-ce que dina jàll parce que ay Kéba mbay ñi ngi fi de hmm. mais kuy dëggal li ñuy wax moo fi amut d'accord ay Kéba Mbaye laa wax de am na fi waxa rek mais ay dëgg xanaa am la suñu maam yi fii dafa am ñu daan wax dëgg am ñuy dëggal wax ji. yaa ngi dégg. Mm-hmm. am ñuy dëggal wax ji. léegi danga nga daan gis nga nga nit wax dara ñu ne diw de waxkatu dëgg la mm-hmm. mais bu ko diw fekkee woon de ci lii mu wax lay ànd yàgg nga ko dégg. mais tey jii dëggalkat yi mm-hmm. buñ dee dëggal tamit waxkatu dëgg yi buñ dee wax dëgg dëggalkat yi anañu ana dëggalkat yi. moo tax ma ne la Kéba mbay bi mu doon dëggal ñu nangu woon dëgg la fi fekkanteel yaa ngi dégg mhm. ñii nag ay Kéba Mbaye ñi ngi fi di wax dëgg mhm. mais ñuy dëggal dëgg ñoo fi nekkut d'accord wax dëgg yàlla mhm. parce que tey réew mi ni muy demee nii xam nga dafa mel ni ay naxee mbaay quoi dem ba ni dafa waroon a bokk ci histoire mais donc comme li nga xamante ni wane nañ ko ci candidat yeeg ak ñi nga xamante ni dañ leen bëgg a galgal ku ci mel Ousmane Sonko day wane que ni à chaque fois euh, li nga xamante ni war nañ ko appliquer defuñu ko. waa xam nga tey. ma wax la benn affaire. Mhm. en tout cas ah, Anta Babacar Ngom. Mhm. Euh, euh, sénégalais la citoyen la comme ñëpp. Mhm. dafa war a am parrainage. mun na dem laaj réew mi am na ci droit. mais. xam nga tey. Hmm. lu waay di wuyoo war na ko mën a nduróo parce que tey booy wax diw artiste la da nga ko gis muy way. mais xëy xëy ñëw rek fekk fi